asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah lundi 10 février 2020 ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag moo xam sunu làmb la yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record wala Leewtoo TV fu nekk rek tey ay xibaar xëy na fa ci yëglikaay yi bu dee fa nga xam ne nag moo di ca Leewtoo TV moom la amoon démb ca la ñu xëy tey ñëwaat mu mel ni ki nag diggante alin Seye 2 moom ak ki nga xam ne nii moo di ñaqe jariñu làmb mujj faa am démb la ko waral nag. moo di xeex boo xam ne ni bu doya doy waar la Alioune say junior wala boog alin Seye 2 ne ca giiw ba di préparer boppam ay mistigam ñu sotti ko lañ ko sotti mu xeex ka ko sotti loola jamante am fa ba deret ba deret tuur fa maanaam daal mbir ya jaxasoo woon dem meloon na ni daal fi mu nekk ni daal sabar gu tas nu neex waaye mu fecc ku dem fa nga xam ne moroon ci arène nationale ba waaye yëglikaay bi di sunu làmb tamit ñëwaat na ci ak ay nit yoo xam ne ni wax nañ ci mu mel ni ki nag fi nga xam ne nii daal moo di ca arène nationale ba moom ci kanamu Matar Ba ak ka nga xam ne moo di docteur Alioune Sarr moom ca la mbir ma daal di amee mu mel ni ki démb kon ca lambi xaadim sàmm ja daal fa mu mujje moom nekkul loo xam ne ni lu neex kenn la moo tax nag ki nga xam ne nii daal moom moo di Matar Ba di nga ma nga xam ne nag mooy espoir réew mi moom nee lii moom mënee su koo bàyyi muy continuer dañ koy arrêté moom ci nii wala ci naa Bécaye Mbaye moom di communicateur mu ngay xam ne ba tey ci sunu làmb daal nee na leer ba leer day lii moom nekk na image boo xam ne day bu ñaaw a ñaaw la jëm ci làmb ndax nag warta demee nii nga xam ne nii noonu la demee yëglikaay bi xëy ñëw tey dina ko wax Max Mbargane itam mu ngay wax ca la nga xam ne ni moo am démb jàpp na ne daal nekk na mbir moo xam ne ni day mu doy doy waaru la mees war a rëccu la moo xam ne sax warees na cee wax ba mu jaara fi jeex tàkk leneen loo xam ne ba tey loola tamit yëglikaay bi ñëw na ci di ci wax leneen loo xam ne ni tamit ba tey ci mbir moomu nga xam ne ni ñu nga cay wax mu mel ni kon daal démb arène national moom lafa amoon doy na waar lool lool lool xeex jàppante mu mel ni ki daal démb moom Alioune Seye 2 moom maanaam jam lañu ko def jam deret ja tuur coow la mel ni bu ma la ko waxati xeex ba jaxasoo waaye terewul nag mbir moom a nga xam ne nii moo fa am démb moom terewul ki nga xam ne nii moom moo di Eumeu Sène Senior moom bëre na combat ba nga xam ne moo ko waroon a boole diggante ak Bour Sine daal di ko bëreloo ba Bour Sine jeex tàkk mu daan ko jël bu leeral leeral leen yëglikaay bi xëy na tey ñëw wan ñu ko mu mel ni ki daal démb ki nga xam ne nii moom moo di Bour Sine moom alin Seye wala ka nga xam ne nii moom moo di ama Sène senior wan na ko leer nañ ndax nag yóbbu na ko alisir daan ko jël boo xam ne nii daal bu leer a leer la waaye la metti nit ña daal mooy la nga xam ne nii moo fa am démb ci ab xeex jamanteeg dàqanteeg dóorante ba nga xam ne ni ki nga xam ne nii moo di ñàkk jariñ moom des koo mujj sax rawale yëglikaay yi xëy nañ tey ñëw wax ñu lu mel noonu boo demee ba tey ca Leewtoo TV vidéo ya ñu nga fa nit ñaa ngi koy coow ku ne yaa ngi cay wax sa xalaat mel ni ki daal démb arène ba moom jaxoon na bu baax a baax a baax sécurité ba daa mel ni daal tamit mel na ni daal nekkoon na loo xam ne xawoon na fa manqué yëglikaay yépp xëy nañ tey ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu mu mel ni ki ba tey bu nu continuer dem fa nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bi nga xam ne nii moo di record record moom la mu xëy ñëw ci revanche la xëy ñëw di ci wax wala combat boo xam ne war naa am ci diggante ki nga xam ne nii moo di Sa Thiès ak Yékini Senior mel ni combat ba ba tey nit ñaa ngi koy plébiscité maanaam daal di ko bëgg waaye daa mel ni fi mu nekk nii lu leer nañ amagu ca waaye jàppal yëglikaay bi xam ne ne daal combat la boo xam ne day ay ingrédients ay ingrédients nga ca yoo xam ne nii laxasu na ca ba ca dëkk moom moo di jàppal la nga xam ne nii moom moo amoon ca ñaari mbër ya ca Radisson juróom-ñetti at toll na ca ba mu amee ak léegi xeex bu tar amoon na le 11 avril 2012 la mbir mooma amoon waaye ba tey bu nu continuer ñëw ci loolu nga xam ne nii moom moo amoon ñoom ñaari mbër yi tamit daa mel ni muy Yékini Senior wala mooy ki nga xam ne nii moo di Sa Thiès daal def nañu ay at yoo xam ne wala ay anne yoo xam ne toog nañ ko année balance bëriwuñu ko ba tey ñaari leader yooyu yoo xam ne daal paan la ñu def ci seen i maanaam daal année balance la ñu jógee ba tey xëy na tey dalal ki nga xam ne wala boog mu defub gëstu ci ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue mel ni ki Gaston daal daa mel ni mooy donkinu làmb ji ndax nag li leer ba leer daal fi mu nekk nii daal ñu ngi annoncé ay affiches yoo xam ne war naa taxaw te boobu ba tey benn affice boo xam ne nii taxaw gu na ci gisuñu ko ak ay bët yëglikaay bi xëy na tey ñëw dinu wax lu mel ni kii noonu keneen koo xam ne nii moom ab yóbbanteem la xëy di ko sànni moo di nees nees nag ci États-Unis ga mu nekk daal mu ngay alerté Papa Sow nee na ko mbër la moo xam ne ni daal moom boo xoolee presque daal mën naa jur sax ki nga xam ne moo di sitta yëglikaay bi xëy tey dalal nees nees daal xëy na dal ci kaw ka nga xam ne nii moom moo di Papa Sow wax na ko lu leer lu leeral leer nañ ne na li leer ba leer day Papa Sow na xam ne Siteu deful benn risque loolu daan ko du ko def te la ca des moom moom nees itam mu ngay réclamer li nga xam ne nii daal moom moo di revanche am contre guy gi nee sa xëy tey ci yëglikaay bi di sunu làmb di fa wax ay waxam mu mel ni ki daal Fallou Ndiaye moom la mu wax daal leer na naañ ne na kii nga xam ne nii daal moom moo di rëg-rëg bu nangoo li ma koy wax moom combat bi day daal di taxaw ñu bëre waaye daa mel ni waa yoof moom ñu ngay dànkaafu ki nga xam ne nii moom moo di rëg lañ koy xamal laa ne nañ ko boo dof dof ba lekk avance Malick Niang moom jàppal ne bii yoon mooy doon sa defet bu njëkk ci làmb nga daal di koy am loolu la waa yoof wax ki nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg ba nga xam ne nii moo nekk ca caaro yi mu mel ni ki daal kon combat bu fi mu nekk nii boo bëggee dégg-dégg doom coow la mu nga ca mel ni tulli ak màlle diggante rëg-rëg ak ki nga xam ne nii moom moo di Malick Niang waaye diggante Balla Gaye ak Boy Niang moom li leer ba leer daal daa mel ni booy Niang ngir mu bëre ak Balla gay daa mel ni waa kër Balla moom lu leer nañ la ñu wax jàpp nañ ne booy Niang moom digganteem ak Balla gay numéro 2 du yombe noonu ndax nag Boy Niang bu doon am élève la buy ut dañ naan dafa redoubler ndax digganteem ak Lac de Guiers lenn lu mu xam defu ko ko ak ay bët maanaam daal daa ñàkk kombaa ba kon moo tax mu mel ni ki moom li leer ba leer pour mu bëre ak Balla na seetiwaat leneen wala mu gën a defarub taxawaayam waaye li jar a wax daal mooy la nga xam ne démb moo am ca arène nationale ba ndax nag yaakaar naa boobu image moom yàgg maar nekkul image bu rafet làmb joo xam ne feet la woon ñépp ñëw kilifa yi xeex jamante ba deret tuuru fa ba làmb Alioune Seye 2 ak ñaq jariñu lépp mu jëfa toxe tàbbi géej loolu yàgg lu doy la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 Amin Babacar nu ñëw nag li xew-xew bu amoon dem si euh, journée Khadim Samb kii di euh, sunu lamb record Leewtoo TV ñoom ñëpp ñëw na ci incident bi nga xam ne moom moo am dem ci combat bi nga xam ne wala boog ci journée bi Khadim Samb doon tëgg te waroon dox ci diggante ñàkk jëriñu ak Alioune Seye numéro 2 Babacar nag incident boobu kilifa yi yi ñoom ñëpp ñaawlu nañ ko mi Matar Ba ministre des sports nee na lii moom mënul continuer ki nga xam ni mooy Bécaye Mbaye di communicateur traditionnel nee na lii daal image boo xam ne dafa négatif ci làmb ji la Babacar. waaw mu nekk loo xam ne nii démb la amoon ca arène nationale ñuy waat suñu papa Xaadim Samb parce que comme lu may wax rek moom tey ah yàlla def na nekk na si làmb comme reporter journaliste maanaam daal liggéeyam ci làmb ku ne xam na ko ak tamit ci Sénégal yàlla def nag mu jeexal loolu xëy na ci ay retraitam ñëw tey nekk promoteur tëgg làmb yaa ngi dégg lamb ji mu tëgg dem nag nekkoon na lamb joo xam ne wax dëgg yàlla ku dem arène nationale démb di xam ne làmb ju neex amoon na fa démb ci combat yu ndaw yi ba ci combat yu mag yi mais nag comme li ñuy wax rek am na ñoo xam ne nii moom yàq leen gënal defar ak lu mënti xew nit ñi bi ñu defar ñu yàq parce que bi ñu demee ba dernier moment ba combat ñàkk jariñu ak Alioune Seye 2 des ak Eumeu Sène Junior ak Bour Sine foofu nag Alioune Seye 2 ci biir géew bi ah falal fa am amee muy loo xam ne ni image bu ñaaw a ñaaw a ñaaw la parce que mbër mu préparé wu ba war a dem si géew bëree ji yow nga ànd ak beneen mbër ma xaw ma loo ko sotti wala loo ko def ah ba waaw la ca am am ca ba nga jàmm yëkkatiwaat jam jàmm ko ko muy lu doy doy waar daal dem day Kumba Faal dem moom ku ñëw arène nationale moom wax dëgg yàlla sa xol metti na trop trop trop trop waaw mais nag yàlla dogal na bi muy am ministre bu Matar Ba mi ngi toog Alioune Sarr a ngi toog kon kilifa yi ñu ngi toogoon ah, précaution maanaam boog ñu jël ci ay dispositif ba nga xam ne lu mel ni ay matukaay boog pour que lu mel ni jeex fi parce que nag mënee su di defar rek ay nit di yàq te ñi nga xam ne matuñu mbuus ñoom chaque jour ñooy jéem a yàq mbuus yaa loolu nag yaakaar naa mënta continuer kon il est que ñu arrêté ko te ñu gën a yaraat suñu parce que tamit am na loo xam ne mënuta ne mënta continuer ay xale yu ndaw yoo xam ne nii sam waay kenn xamul fu ñu maanaam daal mënee sudu sax qualifier seen affaire naka la demee yaa ngi parce que lu doy doy waar la nit ñi ne ci feet làmb ji neex ba dara di su moom war a jeex yow nga coupé appétit nit ñi ci koo xam ne yow ah daal mbir yi daal di man xaw ma sa lan mooy mujj saf quoi te dara waralu ko def lu reewande reewande rek rek rek reewa reew yow ànd ak mbër ah di wanewu maa lii maa laa maa am fit maa am fit du loolu aw fit boo ko yoree da nga koy jaay da da koy boole comme xel yaa ngi dégg doo tooñ yow sa mbër nga ame aaral sa mbër waaye sotti mbër gàllaaj ñu ne dina waaye nga taxaw ci kanamam risque non faw mu jaf jëflante ak yow loolu moo fa am dem di masawu Alioune Seye 2 bu baax a baax baax a baax waaye tamit yaakaar naa ne muy moom muy ñàkk a pour man bëri moo leen fa indi woon démb mais ay nit yoo xam ne nii eh, na ma yàlla jéggal ci kàddu yi daal eh, ñu dooy waar daal loo xam ne daal man mu ngi noonu daal mais baaba est-ce que tey jii nag euh, doxu joxuñ dëgg Alioune sa euh, Alioune CNG amul dëgg ci kaw ñi nga xam ñoo koy ŋàññi tout temps su jëlee ay mesures parce que tamit li ñu wax rek day assainir mais assainir boobu tamit pour yar la aussi tey ak li xew tey jii Alioune Sarr tey su ay dogal comme tey jii ci réunion CNG bi jël ay daan yu métti teg ci kaw mbër yi est-ce que tamit nit ñi li na maanaam daan dafa diis. waaw mais du du Alioune Sarr mooy def mën na mais mbir comme li ma daan wax rek mbir dañ koy régler teg ko ci ay règle loolu amul ma dem te ñëw ku mu ku képp ku mu nga xam ne nii loola da nekk naqari xëy na da nga fekk nekkoo ci lu jub mais kay ku bëgg a jubal bëgg lu baax rek ay régal fekkees teg ko parce que mbir sport bi ñuy def sport la bu ñu war a organiser waree su koo bàyyi mu nekk anarchie lu neex waaye def ci essaye yi dégg lu ma lay wax mbër boroom nit bu nit bu amum xel di di xalaat lu baax moo war a ànd ak moom mais koo xam ne yow sañ ngaa jël arme jam ko nit ah lu ne sañ nga koo def kooku kay mënee su cee bañ a jël ay kii fawees def ko ah man dama si nañu jël ay ay sanction xool ñi ko xam ne ñooy responsable yi ñu teg leen ko parce que mëneesul lu mel ne démb préparé ko ay ministre rek waxuma sax ay ministre mais ñëpp ñëw toog amateuru lamb yi dagg seen biir ñëw toog échange yi dégg ñu war a bëre yow ngay def say yëf yoo xam ne xaw ma yëf yi lan la ba gaañ doomu aadama ba komba ba nga annulé ko noonu ñu ñu lay setaan noonu muy dem loolu war ma a ne mbir yi faw ñu teg ko ci ay ci ci ci ci ci ay régal leen li ci des tamit parce que lii yàgg nay xeeñaa lii lu yàgg di xeeñ la boo xoolee ay yu bëri jaar fi yu mel nii am ci fëkkante gàllaaj mën nañoo dem ci combat ki nga xam ne nii moo di euh, Moustapha Guèye ak kan wala boo Gris Bordeaux ak Bombardier lu mel nii amoon na ci kera maara day taali leneen man lu mel nii mënoon na ci am ba combat ba du am yaa ngi dégg bu fa jogee mën nañoo ñëw si Balla gay 2 Modou Lo yaa ngi dégg Balla Gaye 2 Gris Bordeaux bëri na ay combat yoo xam ne lu mel ni am na ci Eumeu Sène Modou Lo bi passé voilà bébé bis mi bëri ki dem digganteem ak ki nga xam ne nii mooy Ada Fass lu mel ni am na ci loolu lépp mën na arrêté ay combat ba nga xam ne nii sam waaye après fa muy mujjee du baax xam nga mbir la yoo xam ne daal il est l'heure que ñu réglé ko daal li euh, nga dégg tamit sunu papa Bécaye Mbaye di wax moom tamit nee na euh, c'est vrai que incident bii nii nit ñi il faut ñu yar seen bopp mais neen tamit bi maanaam euh, barrière bi doy pour stade bi nga xam ne mooy arène nationale waaw loolu moom jar naa joxoñ parce que tamit dañ ne promoteur bi day day joxe 500000 pour arène bi joxe waat 500000 pour li nga xam ne nii mooy sécurité bi loolu nag mënoo joxe mille pour sécurité ba pare ah te sécurité ba du doy loolu moom warees na koo lijjanti parce que itam yaakaar naa dem li ma fa gis man pour man sécurité ba des na bu baax a baax a baax parce que arène bi li ko wër dafa tuuti yaa ngi dégg li ko wër nii du lu bëri loolu nag bu amee maanaam barrière barrière bi pour nga tëb dugg ci arène bi dafa yomb ci nit mais waroon nañ ko def hauteur boo xam ne bu gudd a gudd lay doon boo xam ne yow mënoo am pexe ba langaamu ci kaw ba yéeg di dugg ci biir sans compter nag boo duggee ci biir arène bi tamit li nga xam ne nii mooy pour nga accès ci géew bi c'est facile yooyu yëpp wares na koo xool ba nga xam ne il est daal ñu fexe ba mbër mi ah ci biir cummukaayam moom buy demati ci géew ba ñu fexe mook manager am ñu ànd ak ab am loolu doy na yaa ngi dégg mais muy sottil boppam gàllaaj voilà moo gën mais bàyyi ñi al topp yu mel ni Babacar yi nga xam ne dañoo bëgg a feeñ bëgg ñu filma leen bëgg a wax bëgg bës ñoom ñoo ci topp ne ci géew bi di daw ak a ñëw di sottante ay gàllaaj bay gaañ mbër mu war a bëre ah loolu moom il faut ñu arrêté ko ma parce que arène nationale benn mu bindoo ñu ko bàyyee ne ak combat yu mag yi fa yi fa war a am ci kanam ah dina doy waar dina doy waar de te fagaru nag moo gën faju waaw li nga wax ñàkk euh, li nga wax Alioune Seye de tamit dégg naa moom tamit démb jot na wàllam ah bien sûr parce que maanaam waa kër Alioune Seye euh, waa kër euh, ñàkk jariñu wala boog ñàkk jariñu ci boppam xam nga Alioune Seye de bi mu gaañoo ba deret ji sang ko yaa ngi dégg waa kër bi ñu ko gisee dañoo réagir fekk ñàkk jariñu fa mu ne dóor ya commencé xam nga waaw dañ ko dóor ba mu daanu ci sunu kanam ñun boo xoolee image yi xëy na yàgg dina la ko won di nga ko di nañ ñu xaar ci yeneen image ci Leewtoo TV parce que affaire bu doy doy waar la démb arène ba nday Kumba Fall yow dootoo xam sax après affaire lu mu lay niru quoi doo xam qu'est-ce qu'il y a non sabar gu sas sax a ko tane ndax ku ne da ngay fecc maanaam mbir yi daal démb jaxasoo na daal Babacar nag nu nu daal si leneen nag ki nga xam ne mooy Ness depuis USA depuis les États-Unis moom daal mi ngi wax si combat Papa Sow ak Siteu nee na Papa Sow mun a nekk papay Siteu te nee na euh, instant bi ni guy gi da ko jox revanche am Babacar nu wax nag leneen jóge si violence bi ñëw nag si làmb ji carrément. waaw waaw ah nee mat na ko parce que papa ah waaw loolu de li ci kanam moom bu na ko papa xaw waaye xam naa ne combat boole na leen. làmb nag bu leen boolee faw bëre am moo xam bàyyi la moo xam doom la faw ñu bëre revanche tamit am na droit laaj ko diggante bi ki nga xam ne nii moom moo di guy gi ndax guy gi da koo daanoon fii stade Demba Diop kon il est l'heure ñu revanche loolu la wax moom nees waaye loo ci mën a dégg daal nañu yónnee yàgg rek ba xam ndax revanche bi dina am wala déet Balla Gaye tamit génn na tamit di wax si nga xam ne mooy Boy Niang nee na Boy Niang dafa échoué soo ko déggee ne xëy na moom combat a jafe boo ko amul bac dana jafe ci yow waaye nag li am solo daal mooy xam naa ne comme daa échoué BFM nag moom ah, xam naa ne loolu mu wax ko dana naqari parce que digganteem ak Lac de Guiers ak euh, Lac bu ko daanoon avec la manière moom defe naa tey kon coow parce que dafa ñàkk combat boobu waaw su jógee nag si sunu lam ni dem si record record nee ña ni ngi dox combat diggante Sa Thiès ak euh, Yékini Junior combat boo xam ne bëgg nañ ko lool combat boobu nag soo ko jegee day mel ni combat Balla Gaye ak Sa Thiès moom mooy ñëwaat Babacar waaw combat bu nar a neex la parce que boo amaatee day niru lu mel ni ngeen waaw day day dina nekk lamb ju neex a neex daal diggante saa ak Yékini Junior moom wax dëgg yàlla lamb daa xukk lamb ju neex la Euh, abunu tamit mi ngi wax ne est-ce que Gaston Gaston bi noonu tuddee la Don King de l'arène nee na dafa mel ni euh, nekkatu ko parce que dañuy wax ay combat yu bëre mu ngi si mais su demee bi si biir daal combat benn du si taxaw Babacar. waaw loolu de gis nañ ne que boobu ba tey ñu ngi wax la Don King waaye daal combat yi ñu koy tudd bëri na te gisuñu benn bu ci taxaw ah xëy na nag kon ñu xaar rek ba xam ndax turu Don wi dina ko wuyoo ba combat yi ñu koy tuddal mën a taxaw wala déet. nu jeexee ak championnat d'Afrique euh, bi amoon euh, bu doon am Alger te mu jeex démb ci dimanche bi su euh, suñu demee ci record ak Leewtoo point net aussi ni nga xamal ni foofu ci six athlètes yu ñu yóbbu woon kenn dong moo ci am médaille muy médaille d'argent muy Anta Samb muy nag lu lu catastrophique ndax ginnaaw bu ñu demee woon Rabat daaw nu am fa ñaari médaille benn or ak benn argent ren moom dafa gën catastrophique wàcc nañ ci benn médaille Babacar muy nag lu jar a xalaat nag ci lutte olympique bi Babacar. waaw loolu moom jar na xoolaat a liggéeyaat loolu moom gënul waaye nag jongante demee noonu sooy dem da ngay bëgg a gagné mais nag des fois ngay ñibbisi mu demee neneen mais benn médaille lañ fa amee ah xëy na ñu gën a liggéey pour prochaine fois incha allah ñu fexe mbir yi gën a mën a yokku daal. Babacar nag ñu jeexale ak Leewtoo yoo xam ni yoo xam ni yu yoo xam ni Leewtoo TV rek moo ko am si combat boobu si journée Khadim Samb na ak ki nga xam ne mooy Alioune Seye lu mënta xew dinañ ko seetaanaat yeneen image yoo xam ne ni amaat na amoon na démb ci arène nationale bi waa encore une fois rek ci Leewtoo TV di ngeen ko seetaan bu neexee yàlla parce que tamit image yi bëri na démb man li ma gis man Babacar mu wax dëgg yàlla gis naa ko gis quoi lu ne gis naa ko démb ay affaire yu doy waar nday ko ma fal ay xale yoo xam ne man xaw ma xale yi dañuy gees xaw ma dañuy mandi man daal doo comprendre daal xale yi daal man seen affaire di jaaxal na ma daal te ñoo xam ne bakkan deesu ko tay la ci ci lu ko jarul nañu jéem a yem jéem a jéem jéem a tranquille xam ne ay ay ay kii lañu ay dañoo am ay ndey am ay baay man mbër du ma jaral jaay sama bakkan de bakkan dafa dund daa seer ku ne da nga am nday am baay mbër mi dafa am nday am baay Alioune Seye ak ñàkk jariñu bu marre bu ñu demee seen se bu ñu gàddoo seen reliquat seeni kër lañ koy yóbbu jox ko seen ay wayjur yaa ngi dégg kon yow looy def na nga ko xam ànd ak mbër war tax nga bañ a mën a dal yaa ngi dégg mais booy yi daal man daal xam naa jaaxle daal ay dóor ay këf fii ay saaga bu non mais boo waxee ñu ne sécurité bi ah? sécurité bi am na loo xam ne mënuñu ko parce que nit ku ne yaay sécurité sa bopp sécurité sa bopp mooy bëgg sa bopp bañ di tooñ gor du tooñ làmb ji dem mënoon naa am ndax ñaari mbër yi pare woon nañ pour bëre ko mais lima la wax sànq rek ñoo xam ne matuñ ñu buus te chaque jour ñu bënn mbuus rek doy na waar si si conseil yu Babacar yoo na leen yi sunu yaay merso Sow euh, sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astane ne depuis Italie Chéri Khadija Diallo nuyu samay doom maam Diarra Penda Rokhaya Grand Fallou ak ki nga xam ni mooy bébé Moussa nuyu Abdou Gueye depuis États-Unis ba Faye Diambaguène Papa Isita nuyu Asek euh, Chéri Khoudia Seck depuis itali nuyu ki nga xam ni mooy Ramos Ndiaye depuis Italie maa ngi koy nuyu lu bëri di souhaiter nag un happy birthday à Malick Ngom arbitre depuis Algérie naan ko dundal dundal loo dund rek doyul ah Malick day anniversaire tey kon Malick happy birthday yal na la anniversaire bi jig barke waa happy birthday ak nu mu nuñ ko waxee rek l'essentiel que daal guddalu fan wér euh. loolu lañ lay ñaanal di ko ñaanal képp kuy anniversaire du fàtte tamit nga xam ne nii moom moo di Mariama Ba yaama maa ngi koy wax happy birthday to you moom tamit di ko wax mu dund lu bare bare bari moom démb la doon fête anniversaire di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre ñëpp à travers le monde ak fu ñu mën a nekk rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam nga ñaanal ñëpp jàmm ñoom tuuti yaay Sarr duñ leen mën a fàtte parce que Ndeye Coumba Fall faw ñu tudd ñu ñu loolu mën ta ñàkk faw ñu leen di tudd ñoom Khady Rose Ndiaye Asi Diagne ah sama naar bi maa koy nuyu di nuyu ñëpp ñoom Khady Ndoye képp koo xam ne daal yaa ngi ñuy bégee di ñu ndamoo di ñu sagoo ñu ngi lay ñaanal jàmm di ko saako ci yow di wax ne que rek yàlla na jàmm yàgg Sénégal. jaajëfal sa cameraman yàgg def na liggéey bu mucc ayib. waaw non comme li ma la wax rek taalibe sa Saliou xam nga boo nekkee taalibe moom am na loo xam ne ni du doon sa problème faaw nga nekk ku nangoo liggéey ndax moom da doon wax ne lu dul lu jëmu ci yàlla uma ci defar uma ci yàq te itam liggéey ñaqi jariñu rek mooy slogan bi leneen amu fi kon yaakaar naa yàgg loolu mu def mooy li mu war a def rek yaa ngi dégg boo nekkee ci liggéey moom nekk ca def ca la nga ca war a def ngir boo ci jógee ñu xam ne yow mi la la waroon def nga ko kon yàgg maar mention spéciale di nuyu Modou Mané tamit xamam moom mooy chauffeur bi di ñaanal képp koo xam ne ni daal yaa ngi Leewtoo yàlla na la yàlla defal jàmm ak feneen fu waay mën a nekk rek di yëngutu parce que Sénégal moom jàmm fi am jàmm fi xaj yàlla na yàlla saxal jàmm jooj ci def ko fépp ci àddina bi amiin ba suba incha allah